maa ngi continuer di jur coow bu baax a baax ci réew mi candidat bii di Thierno Cissé daal di présenté benn liste parrainage boo xamante ne ni ay faux député ñoo si nekk loole nag daal di jur coow. nekk na benn comportement individuel boo xam ne bu jaaduwul la bu défectueux la mais également bul fàtte ne conseil conseil également mën na ci am responsabilité engagé moom mi la nag li mu jàpp mooy kii di Thierno Cissé ak autorité yi ku ci nekk def cee am wàll ndaxte lenn waralu jafe-jafe yu am ci administration justice sénégalaise bi. daan ñu ko ci mën a fekk ça dépend ci qualification juridique bu ko juge bi di jox parce que li mu def également faux la mais également tentative de nuire la mais lu question lu mel ni élection présidentielle mi ngi tante mel ni lu koy mel ni lu koy banaliser moom laa la wax ni la conseil constitutionnel am na ci responsabilité. état ji responsabilité en tant que renforcer la loi sur la. sur le conseil concerné inspiré wu ci la loi sur la cour suprême bi nga xam ni moom dafay sanctionner les recours abusifs fii tamit ñu sanctionner li ñuy wax les candidatures abusives ou délatoires. ñu dooree contrôle parrainage yeeg léegi mu bari lool ñuy génn di ñaxtu li ñu jàpp mooy lii di logiciel bi nu muy doxee dara baaxu si. moo waral ba kii di Mbaye Cissé moom li mu gis mooy conseil constitutionnel dafa war a dakkal contrôle yi ba lépp daal di dellusiwaat ci normal. parti politique yi. même société civile bi dañu war a exiger état du Sénégal ñu mettre leen à la disposition du logiciel ñu expertiser paramétrage yu logi logiciel bi n'est-ce pas de contrôle de parrainage bi ñu ñu xool ko expertiser ko ba xam nan lañ ko paramétrer. fàttali nii ci atum 2019 cour de justice bu CEDEAO dafa daldi woon génne benn arrêt di ci xamle ni système de parrainage bi méngoowul ak lépp luy jëmmal démocratie moo waral mu ñaanul nguuru Sénégal mu dakkal ko ngir mën a permettre képp kuy candidat mën a bokk.